ba tax na sayid cheikh ahmed tijani wax na ni nee na xam-xam ci ñaari yëf lañu koy xame ni kookaa nga ci yoonu xam-xam nee na na fexe ba ragal jiw na fexe ba ragal rambaaj na fexe ba ragal fen na fexe ba xeet nit ñaawal leen nee na booboy wàllu lammiñ nee na xol mooy na fexe ba ragal na fexe ba ragal na fexe ba ragal mbañeel waaw nee na bépp jàngkat boo xam ni lii tàmbalee nga ko tegtal la ni dégg nga li nga naar jàng